dal ak jàmm seen showroom SMK soxna Maymuna Kubra fii ci Touba. kon ñu ngi leen di dalal fii ci seen showroom SMK bu Touba. su ngeen agsee ci seen showroom SMK Touba da ngeen fiy fekk li ngeen soxla yépp ci électroménager li ko dalee ci ay réfrigérateur réfrigérateur option side by side ñu mën leen cee wan bii nga xamante ni mooy Samsung bokk ci modèle yi mujjee génn am système boo xamante ni inverteur la tuning cooling la mooy loo xamante ni suñ ko waxee mooy partie yëpp mën na nekk congélateur comme mun na nekk réfrigérateur option yi mu am nag bari na mooy dina du consommer courant en plus dafa am distributeur bu glaçon pour woo xamante ni glace la soxla ak distributeur boo xam ni pour ndox la am option bi nga xam ni easy la mooy day yombal lépp loo soxla ci biir congélateur bi ba nga xamante ni ubbi bu bari bi du la ci fekk option yi am it bari na mooy que comme tey soo ko utiliser ba tëjaat ko ak ci trois secondes moom dina tëjaat boppam mooy dafay verrouiller boppam automatiquement pour xale yi en plus li ci nekkoon yëpp day delluwaat ci congélation bi mu nekkoon ci 3 secondes. moo am nag yoo xamante ni dafa bokk ak moom famille mel ay combiné. yoo xamante ne ay deux portes la yëpp tamit ngeen mën ko am ci seen gamme bu large ci Samsung ba tey réfrigérateur yi yemuñu foofu ndax am na fi yoo xamante ni yeneen marque la mooy lu mel ni Sharp Beko Solstar ba ci Haier muy marque yoo xamante ni yëpp marque yoo xam ne garantie la ñu leen di garantir seen i congélateur ak seen frigo à partir de un an ba jëm deux ans bagage yi fi am nag bari na ndax lu am na fi lu mel ni ay cuisinière pour seen waañ yi lu mel ni micro yi ngeen di soxla pour mu yombal liggéey ci waañ am nañ fi ay frigo yu ndaw yoo xamante ni pour chambre la wala pour bureau muy ay mini ak ay bar ci marque yi nga xamante ni yëpp am na référence fii ci Sénégal fontaine yi aussi bàyyiwuñ ko ndax mooy yombal seen liggéey ci seen biir bureau yi wala ci seen biir hall yi nga xamante ni ni seen attente la kon loolu yëpp SMK mu ngi leen ko fi bàyyee leneen nag li ëpp solo ci Touba nga xamante ni dañ koy soxla mooy split nga xamante ni mooy li nga xamante ni daanaka Touba tàngaay bi moo tax suñu waxee rek dañuy wax split split ñu am ci liggéey bu mag am ci gamme bu large nga xamante ni dañuy mën di garantil seen spleen lu tàmbalee ci at ba ci juróomi at ñu mën leen cee wax marque yi ngeen gën a xam mu commencé ci Samsung Sharp Beko ñu am nag marque yoo xam ne dañ koy indi spécialement pour màggal Touba ren muy General Max ak beneen marque bu naan Evolu General Max di marque boo xamante ni nii xam nañ ko ci ràññee nañ ko ci àdduna bi yëpp seraayam jégg na dayoo muy sedd ci waxtu yu néew lay sedd moteuram ñeme tàngaay loolu ñu mën leen ko garantir ci ñaari at mu am filtre boo xamante ni nii lépp loo xam ne poussière la wala muy humidité nga xamante ni day jóge ci biti jaar ci moteur bi moom dana ko segg ba du egsi ci ñi nga xamante ni ñooy fanaan ci biir néeg bi ndax comme sérail la bu bu bàyyee bactéries yi dugg rek day indi feebar looloo tax ñu indi leen genre boobu Évolu tamit di marque boo xamante ni nii italien yi ñoom ñoo ko moom ñu ñëw indi ko Sénégal indi leen ko pour Touba rek nga xamante ni ñoom dañ leen koy garantir ci juróomi at Évolu nag nekk marque boo xamante ni nii li muy consommer courant dafa néew lool li ñu jëm ci màggal nga xamante ni marque yi day tàkk saa su nekk frigo split yi dangeen koy mën a taal jamono bu nekk. kon yu nag moom mooy moom lañ leen di wan nii ak évap bi nga xamante ni nii dafa méngoog jamono nga xamante ni moom li ci li ci li ci nekk mooy. Euh, day fay boppam nga xamante ni bu seddee rek moom day mën a arrêté moteur am moo xam ne mooy consommation courant bi du bari ñoom nag ñu dee lañ koy garantir ci juróomi at te kuy garanti juróomi at produit mooy kooku bëgg nga dëkk ba la fa nekk mu jag kon split yi moom lañ leen tegal nii euh, lu ngeen ci bëgg nag am nañ ko lu tàmbalee ci 9000 ba ci 24000 nga xamante ni mooy un cheveu ba trois cheveux armoire yi tamit disponible na ci split yi kon nag yéen ñi nga xamante ni kër ngeen yor wala ngeen yor ay daluwaay yoo xam ne daluwaay kese wala entreprise yu mag yi fi nekk wala lu mel ni jumaa yi ñu war a seral luñ ci bëgg a seral rek bu ngeen ñëwee SMK fii seen xol dina ci sedd techniciens yi tamit ñu ngi fii te disponible nañ livraison bi tamit disponible na dinañ leen ci topp tamit at yi nga xamante ni yëpp dinañ leen ko garantil SMK di leen proposé tamit gamme bu large ci téléphone tàmbale ko ci marque yi nga xam ne moom lañ gën a reconnaître fii ci Sénégal lu ci demee ni Samsung mu ñu mën a def gamme bi nga xam ne mooy gàmmu Samsung yëpp bi nga xam ne day am garantie fii ci Sénégal li nga xam ni mooy S9 ci Note 9 wala s ba wàcc ba ci suuf ba téléphone yi nga xam ne mooy simple yi gamme bu large nag lañ ci am yëpp garanti bi di dem ci ñaari at kon bu ngeen ñëwee fii ci SMK lu ngeen soxla ci téléphone di ngeen ko fi fekk yamul foofu rek mais mm, téléphone Nokia yi ñu fi nga xamante ni xam nañ ni dañuy soog a génn ñoom bokkaat ci jamono bi ñu jëm ci Nokia 8 Nokia 6 5 ba Nokia 2 di ngeen ko fi fekk seen téléphone tamit bi nga xam ne yàgg ngeen ko bëggoon ngeen ko te ñu indiwaatoon leen ko mooy 33 10 tamit di ngeen ko fi fekk lépp nag ci prix yoo xamante ni prix yu xéewaleel mais dina leen proposer yeneen marques yi lu mel ni ay techno Tecno Infinix jëm ci Huawei Motorola Itel kon seen adresse nag SMK bu leen koy fàtte fii la ci Touba 28 fi jàkkaarloog canal Horizon bi ja dend ak TQG bu ngeen ñëwee fii foofu mooy adresse bi Euh, kon nag téléphone yi ñu leen mën a proposé bëri na Huawei tamit ñëpp xam nañ ni téléphone boo xamante ni la ñoom dañoo am qualité lool te ñu bëgg ko lool kon bu ngeen fi ñëwee lu ngeen soxla ci gamme Huawei di ko fi fekk. yeneen yi ñu leen mën a proposer tamit bari na ci électronique lu ci mel ni informatique bi ñoom ñu ngi fi moom tamit am ci gamme large li ngeen ci soxla yépp ci machine mooy bu bees la loo xamante ni souris la wala clavier wala accessoires yi nga xam ne day ànd ak ordinateur yépp wala matériel bureautique bi lépp su ngeen ñëwee di ngeen ko fi fekk. audiovisuel aussi dinañ ci dox lu bëree bëri lu ci jëm ci home cinéma yi ak yenn appareils yi ngeen di soxla pour seen audiovisuel yëpp di ngeen ko fi fekk. ngeen mën fi fekk tamit gamme ci seen télé télévision bokk ci li nga xamante ni xam nañ ni day mottali dundu doomu aadama kon nag ñu mun leen proposer ay télé yoo xam ni option LED la. option smart ba ci option Android bi ngeen xamante ni moom moo mujjee génn ngeen mën ko fekk ci seen marque de référence lu ci demee ni Samsung moom tamit ak garantie ñu mën leen proposer ay LG di leen proposer ay charpe mën leen a proposer tamit marque bi nga xamante ni moom mooy marque bi nga xam dafa xew ci jamono muy évolue ak garantie ñaari ngeen mën ko fa fekk ci option yëpp mooy LED simple mën ko fa fekk ci LED plus smart mën ko cee fekk aussi ci ay Android kon nag télé yi lu ngeen ci soxla ci dimension bu mu mën a toll li ci commencé ci 24 pouces ba ci 70 bu ngeen ko fi fekkee bu ngeen ko fi soxlaa di ngeen ko fi fekk kon nag lu demee ci seen bureau wala ci seen euh, kër wala ci seen magasin yi ngeen liggéeyee ba showroom boo xamante ni sax dafa soxla exposition bu ñëwee fii lu mu soxla ci écran dina ko fi fekk. kon nag ñu mën leen a tamit li nga xamante ni mooy ay cuisinières ak ay euh, micro-ondes yoo xamante ni nii pour yombal seen togg la machine à yi tamit bàyyiwuñ ko ndax nañ ni moom it loo xamante ni day yombal euh, kër la. kon nag machine à laver yi nga xamante ni mën naa am nit ñi miinuñu ko bu ñu fi ñëwee dinañ leen wax option yëpp dinañ wax dinañ leen wax li muy jariñ ak li muy soxla. kon tamit bu ngeen ñëwee di ngeen ko fi fekk adresse bi nag mooy lañ ko waxoon mooy fii ci Touba 28 la fii mooy ci xàll yu nga xamante ni moom moo jëm jumaa ja ci deux voies yi foofu la nekk dend ak TQG jàkkaarloog canal horizon bi numéro téléphone yi bu dee fixe bi di ngeen ko mëngeen ci woote ci 33 978 38 loolu mooy numéro fixe bi numéro portable yi tamit di ngeen mën woote ci 77 800 00 40 wala ngeen woote ci 77 419 11 92 wala ngeen woote ci 77 367 26 88 kon nag numéro yooyu yëpp bu ngeen ci wootee dinañ leen ci wuyu.